D'abord, salam alaikum. Donc, man maay Baba Ndiaye le vice coordinateur du mouvement national des jeunes de PASTEF n'est aussi le coordinateur du département de Pikine au niveau de PASF. Euh, je pense que tay bi fi len waral euh, bientôt au moins, la jeunesse sénégalaise est en train de se battre pour la démocratie la jeunesse sénégalaise est en train de se battre pour libérer le Sénégal la jeunesse sénégalaise est en train de se battre pour les libertés d'expression et libertés et droits individuels euh, yalla def na là où on parle rabbil alamin on a eu gain de cause d'une part parce que le leader Ousmane Sonko l'espoir unique de toute la jeunesse sénégalaise yalla dogal na génn na kaso de na mais sous contrôle judiciaire est-ce que affaire avéré amul nañ de sa raf pour nous, Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire mais pour nous, la jeunesse sénégalaise Ousmane Sonko est libre définitivement définitivement Nous sommes si ñom ci un texte Ousmane Sonko est sous contrôle judiciaire mais la jeunesse sénégalaise dit que Ousmane Sonko est libre définitivement. voilà qui euh, voulait libérer les otages politiques parce que Birmin mi Ousmane Sonko am na ñoo xam ne nañ ko li ci mel ne ñoom Guy Assane Diouf Thiat bu Y'en a marre ak euh, euh, combat vous fan ngeen ci toll. waaw combat combat la du ñaar du combat. du combat combat commencé depuis que nous 19 19 jeunes ci là où je te parle y a 19 de nos compatriotes des jeunes responsables qui croupissent au niveau de Campenal, au niveau de Cap Manuel. Le combat va commencer depuis l'arrestation de ces jeunes-là. on a eu les deux coordonnateurs départementaux donc Kenki, ki le secrétaire exécutif de Passif les Patriotes de bremse Souleye Diop Anda ak euh, Abbas Fall que le du département de Dakar Gana boobu noonu aussi d'autres jeunes au niveau de Ziguinchor de Bignona partout au Sénégal ont aujourd'hui fi à rien, ak des otages politiques on s'est battu aujourd'hui Ousmane Sonko est libre je dis bien libre pour nous la jeune sénégalaise il n'est pas sous contrôle judiciaire Ousmane Sonko est libre est libre euh, là où je vous parle, le combat, le combat continue jusqu'à ce que tous les otages de Macky Sall soient libérés et le, le combat là jusqu'à ce que Macky Sall démissionne. Bon, juste on est là pour soutenir notre candidat euh, notre euh, patriote hors pair qui est Ousmane Sonko. Donc raison pour laquelle je pense que je suis là et toute la population sénégalaise aussi est là. Donc on est là dans la bonne cause. On est là pour la défense de la liberté. Mais marche bu ñu fi ñu dox ñaxtu dëkk bi dara doxul dañoo sonn ci régime Macky Sall bi dañoo sonn jël dëkk bi bu ñu jaar doole ah bu ñu jaar doole pour lan mais ñun Sonko mais pourquoi waay Sonko waay waay Sonko waay ñu bëgg mi bëgg nañu démocratie di ñaan Macky ngir yàlla ak yeneen bi lii mosu fee am ñi nga xam ne otage politique la ñu xeex ba ak ci fii ñoom kii mooy Sagna ñoom caat ñoom ñëpp nañ leen libéré nañ libéré Sénégal yi quoi parce que tey boo xoolee ñi fi nekk nii ñëpp du question ku si nekk sa intérêt moo fi indi intérêt nation bi moo la fi indi c'est pas pour que ni que luñ ko téye wala dara mais xam nga parce que dëkk bi dafa toll fo xamné ne dafa metti trop dafa metti dafa metti luñuy dund dafa metti et puis xam nga ñeu tok buñu uppé doole ñeu bëgg ne dang koy dang koy ñeu jël ko ci kaw nit ñi nek nekk loo xam ne ni dafa dafa metti trop quoi dafa metti trop franchement franchement quoi. l'explication image bi ni nga sëggé ni nga toggé suku ci souf lo bëgg wax fofu pour manam liberté liberté ñun duñ ay esclave quoi bon lu xamni ne lu nekk duñ ko bëgg tok duñ ko tënku ya ngi comprendre liberté dañ ko wara mëna am liberté boko amul do nit c'est ça en fait ok merci. Il y a des gens qui ont besoin de comprendre l'information aujourd'hui les Sénégalais se sont réveillés aujourd'hui la conscience sénégalaise est au rendez-vous voilà léegi lu ma bëggoon tënk mooy fu mu Sénégalais xam nañu fu mu toll nii nguur gi dafa yoon. Sonko Ben élément la won réveil sénégalais pour ñu xamné il faut que Macky Sall dem nos violer sénégalais nous nous. Nous motax ñepp pour réclamer sa justice réclamer démocratie réclamer droit de manifester pourquoi nous téye ay détenus les otages politiques il faut qu'on les libère Guy Marius Sagna faut qu'on libéré ko Thiat faut qu'on libéré ko les faut qu'on qu'on libère Ce c'est pas normal qu'on les laisse en prison Nous du yoon. mënatuñoo d'accord di gis suñu suñu ay français qui sont ko diriger. mënuñoo d'accord di gis suñu justice ñu koy manipuler di Nous sommes mënuñoo d'accord di gis kenn yor ab idéologie bu baax boo xam si moo war développer suñu réew ñu ñu koy il faut que Macky arrête. ñu fay bàyyi Macky Sall ñoo ànd ak Sonko xam nga parce que nous nous condamnons toujours l'injustice tey tey jii ko jeune bo mën di gis mu ñëw and ak Sonko xamul tax c'est parce que cette injustice là ken mënu ko cautionner mën a wax ni da nga violé mu dem à l'hôpital on lui a dit que ne 16 heures de temps ci ginnaw ken ken violé wu ko tëdd ak ben góor nga mëna taxaw ne dang koy dang koy tëj nit on ne doit pas cautionner cette injustice ku ko mëna cautionner rek ak ku mën di doon do julit ak yàlla mi ngi lay xaar sa ëllëg mi ngi lay xaar les jeunes nak tay bu ñu jàpp ne tey on a libéré Sonko libéré Sonko dé parce que dañ ko tek ci lo xamné day ji sa 15 jours day dem xolé justice ñu xam ne mi ngi on donc contrôle judiciaire la nek. bu nit ñi jàpp ne dañ ko bàyyi cette injustice là xeex bi jeexagut parce que on a condamné des personnes yoo xam ne d'une manière arbitraire lañ leen jàppee ana ana Guy Marius Sagna ana Clédor Sène ana Assane Diouf

donc ñi ñu rey fii tamit tamit suñuy rakk lañ donc nag cette justice là war nañ ko wane ah, y a des yoo xam ne qui sont mortes tey jii nii Sénégal war na mën a wax leneen tey am na tey jii pour man CEDEAO war na mën a wax ci lii waaw c'est la justice soit faite man benn message rek laa am bu may jàllale benn message benn message laa am bu may jàllale pour Boy Antoine ñun duñu ay terroristes nous sommes des sénégalais nous sommes des citoyens sénégalais nous sommes des patriotes nous sommes pas ko amoon yëpp da ko amoon ñu taxaw di xeex pour suñ pays na ko mën a añ ay témoin voilà man loolu kese laa lu may wax. aussi aussi ñu ngi naqarlu ñu ngi fàttali ñëpp ñu ngi koy méttalu. moi je demande. feere nañ Sonko nañ bàyyi mu sedd loolu day yomb. day yomb li ñu war a def li ñu war a def leen la gars yi te tax. ku ci sa rak dee woon wala sa frère dee du la neex am nañu jot a dee te dañ doon xeex te liñ doon xeex pour lan la pour Macky sal dégager fii c'est ça le problème bi maintenir ful bi ñu am. ñu def directement palais Macky na démissionné. loolu moo am solo mais ay Sonko libéré. mais négociation yi ak kilifa yi wax tamit sëñ bi depuis démb ba léegi xam nga yëpp déggoo amul mais euh, ñu war a delloo cër kilifa xaarandi waat wala. waaw cër bi ñu leen jox moo nekk la ñuy def nii kilifa yi ñoom mënuñoo xeex même buñ ko bëggee ñun ñooy jeunes ñun ñoo am. ñu sunu réew ñeneen mi doxal ñu sunu réew ñun loolu lañ bëgg mais Macky instant yi maar nañ ci moom fàtte nañ ci ko. ñoo sant ñëpp di gërëm ñëpp vraiment ñun nous la démocratie e la justice loolu lañ bëgg ci Sénégal tu vois. donc Macky Sall boobu ba léegi bañ ko falee ba léegi moo ngi fi nekk fii di jël ay opposants di leen tëj ci kaso bi te loolu di dëgg di yoon yaa ngi dégg dafa war a vraiment xoolaat entourage am mu xam ni dañoo Sénégal ci ay loxo yi leer lañ ko tegee parce que Abdoulaye Wade fi nekkoon mu gañe ko. yaa ngi dégg ñu jël ko jox ko donc na respecté sénégalais yi li nga xam ne moom lañ bëgg mu def ko affaire bi na ci yoon def liggéeyam yaa ngi dégg moo gën mu jàpp nit ñi di tëj yaa ngi dégg ku wax mu créé ay problème loolu du dëgg du yoon essentiel li ñu bëgg mooy Sonko nañ ko libéré otage yi ñu libéré leen Ousmane Sonko mais c'est pour nous battre contre l'injustice c'est pour nous battre pour un état de droit c'est pour rétablir la justice dans ce pays c'est pour dire que ce pays ne marche pas, que le système sanitaire ne fonctionne pas normalement. Et dans un pays, quand rien ne marche, les gens font la marche, même les médecins que nous sommes. En réalité, nous sommes ici pour ça. Alors, des blouses blanches dans la rue, est-ce que ce n'est pas trop, euh, trop exagéré, disons Exagéré. À la base, un médecin, c'est un citoyen simple. Et si toutefois, comme je viens de le dire, dans ce pays, rien ne marche, même si quand on reste dans les hôpitaux aussi, rien ne marche, pourquoi pas ne pas descendre sur le terrain pour dire à ces autorités qu'on en a assez ce président ne travaille pas, ces ministres ne travaillent pas, ces autorités sanitaires ne travaillent pas. Et il faut venir, il faut que vous vous déplaciez dans les hôpitaux pour regarder la situation. Rien ne va dans ce pays. C'est pour cela qu'aujourd'hui, vous avez des médecins ici. Et encore, c'est le moment de rectifier le ministre de l'Intérieur qui pense et qui dit que les jeunes doivent aller apprendre. Aujourd'hui, quand vous voyez cette foule-là, ce n'est pas seulement des gens qui sont désorientés, ah mais ces gens avec des têtes bien faites qui sont là, mais qui se battent pour leur pays. Nous le faisons d'habitude dans les hôpitaux, ailleurs, mais aujourd'hui, on a décidé de venir marcher et pacifiquement. Ah alors, euh, on va essayer de parler euh, de la vaccination contre la Covid-19. Euh, on nous parle. Est-ce que vous avez un commentaire à faire là-dessus, par Pour la vaccination, je pense que déjà moi, ce que je déplore, c'est que c'est un débat qui devrait se faire en scientifique plutôt qu'en politiciens. Et aujourd'hui, on a vu que le débat a été déplacé chez les politiciens alors que ça ne devrait pas être le cas. Maintenant, si vous voulez avoir vraiment de bons, euh, de, bons avis, il faut vous rapprocher des scientifiques. Et peut-être aujourd'hui, ce n'est pas le moment choisi pour parler de ça. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'on a remarqué, oui, nous sommes là, mais nous ne sommes pas venus pour ça. Mais on a remarqué que rien que dans la répartition des vaccins, il y a un problème d'inéquité. Et il faut qu'on lutte contre ça. On ne peut pas concevoir que la première dame reçoive chez elle des invités d'honneur afin de les distribuer des vaccins alors que ce n'est pas en réalité des populations cibles. Il faut que cela cesse. C'est de l'injustice, c'est de l'inéquité. Et nous, nous nous battons pour la justice, pour l'égalité, pour l'équité, pour la répartition des chances, pour que tous les Sénégalais soient au même pied. Alors, vous êtes euh, des blouses blanches, comme je l'ai dit tout à l'heure. Quelles sont, euh, vos, euh, disons, vos complaintes Nos complaintes, c'est les complaintes de tous les Sénégalais. Oui, dans le secteur... dans le secteur de la santé, mais rien ne marche. Il n'y a pas de structure adaptée. Mais il faut venir dans les, dans, dans les urgences, dans les services d'accueil et d'urgence, dans les hôpitaux. Mais il n'y a rien. Dans les blocs, il n'y a rien dans le recrutement des fonctionnaires, y a, mais il mais, n'y a, a, pas de transparence, il y a un népotisme. Cette gestion est opaque. Cette gestion de nos autorités, cette gestion de, de, de, de autorité, des autorités en place, c'est une gestion opaque. Il faut que nous luttions contre cela. Nous sommes rek les gens qui ont doomu Sénégal kenn du ko tooñee si ay as tooñ boo xam ne jaar lu yoon ñun ay doomu Sonko lañu dañoo bëgg Sonko bëgg kay war daf ñuy xeexal au niveau international ak fépp kon Macky Sall loolu def loolu bàyyi Sonko mu ne si jàmmam. noonu gën a lii lii des na ay suuko judiciaire ak yooyu noonu ñu wuruñu loolu xam lu ñu xam Sonko noxo ko bàyyi ak liberté dem total fu mu dem mu dem total lañ ko bëggal Sonko jàmm rek lay am Macky Sall koy ñaan nag ci kuru askan bi yëpp mu nangul bàyyi Sonko mu am liberté totalam ñu lañ koy ñaan. deug bi nak jàmm rek fi xaj dañu jàmm xaju fi ce drapeau dañu gis nga gàccoo ce drapeau ñew fi ni cité kër góor gi dëgg la et pourtant libéré nañ Sonko wa man dal li fi def moy on est venu massivement ah, pour xex li nga xamné moy suñu démocratie mom lañ nekk di xex ba tay affaire bi nekkul problème ay affaire de Sonko mais affaire ah non non du affaire jeunesse affaire dëkk bi la ci ni muy doxee ah ci nax gi ñu nekk di ñu nax xoqatal gi ñu nekk di ñu xoqatal loolu moo ñu metti te pare guñu Guy Marissagna n'est pas encore libéré Hassan Diouf Kilifeu Tchad ah et les autres Clédor d'orsen. je peux même pas citer il y a trop de gens qui ne sont pas encore libérés ah, ñun loolu moo ñu tax a actuellement

Ousmane Sonko nag bàyyi nañ ko loolu la ñu wax waaw ñun nag li ñuy xaar ci moom loolu tamit faaw ñu wax ko mooy liggéey réew mi nañ ko jéem a liggéey fii seetlu nañ depuis PS da ngay xëy di gis ay bus Sotrac vert blanc Ablaye Wade waa indi fii ay busam jaune bu la Dakar dem dikk Macky Sall indi fii ay busam ay beige jaune yooyu dafa war a jeex ci ab réew.